asalaamaaleykum les internautes Asmoon TV di am mbégte rek ak contentement di ñëw ak yéen émission Asmoon Sport fii ci Qatar Qatar nag buñ ko tuddee moom mënuñoo bañ a tudd asma mun nax wax dëgg yàlla nekk na dëkk boo xam ne tey jii nii jaar naa fi waaye du man nag maa fi njëkk jaar ndax na am na ay anciens internationaux yoo xam ne ñu fu jiitu ku ne nga si am Ndiaye xam ni def na ay jaloore ci dëkku naar yi waaye mën nañu wax ni moom mooy sénégalais bi nga xam ni moo njëkk a fii ci Qatar suñu jugee ci Ngesiam Ndiaye dañuy dem ci Grand Al Bourilah l'international de

Euh, Elage Hadj Ousseynou Diouf di ci am contentement ak mbekté toog fii tey jii di def émission tey jii di mëna wax ni fi ci Qatar rek pour ma léral touti rek euh, euh, surtout les anciens internationaux ak internautes yi ñu xam ni tey ni nii ñëw naa dëkk bo xamné mëna wax ni 21 ans ngi nii ne maanaam ma gëj fi wa parce que mëna wax ni 2000 saison 2001 2000 2001 ma ngi don jé fi ci Al Wakra fi ci Qatar wa def fi nag ay jaloore ama modeste personne fo ma wax touti rek pour léral touti rek wax ni def na fi ay jaloore yoo xam ne mënul fay ndax jël naa fi championnat fii jël naa fi meilleur buteur mën naa wax ni sax euh, tey jii nii buur bi nga xam ne tey jii nii moo nekk fii ci ci ci ci euh, may jox raaye yi moom moom ko joxoon boobu nekkagul woon buur kon loolu taw feex la rek ak contentement mais mënumaa sori parce que tey jii nii dafa nekk dafa am loo ne tey jii nii li waral lii li waral tey jii nii Asma mun ñëw am koo xam ne tey jii nii mooy euh, international sénégalais boo xam ne moom moo tax ma ñëw fii ndax dafa am billet boo xam ne tamit dañ ko tegoon ci biir ci biir anciens internationaux yi bi mu ko jëlee mu ne dama koy jox sama mak Asma mun koku mom c'est une référence euh, ci AIFS muy Pisco Ndiaye di rak ci Habib Ndiaye di rak ci Abdou Yoro Ndiaye waaw rak dama lay ñaanal Salam. ak salam wax ni rek def nga royukaay nga mën naa wax ni tey jii nii lii rek lañ soxla ci biir AIFS waxante lu baax defante lu baax parce que boo déggee ma ni référence nga rek parce que acte bii nga def dafa nekk acte boo xam ne day boole day tax nit ñi gën a ubbeeku ci xel parce que am na fi sax waaye ni nga ko defee moo rafet sunu raq ju baax ji kon dama lay ñaanal rek jàmm ak salaam wax ni lu baax rek ngay def ndax nit moom mënoo ji lu baax di am lu bon lu baax rek ngay am incha allah parce que lii rek moo war AIFS dañuy ñaan ñaan rek euh, ci kanam ak kanam rek inshallah allah ñu dem ba nga xamni dal dinañ wessu sax sax di naan dañuy tirage ndax wax deug yalla projet yi nga xamni mi ngi suñu kanam gëm nañ ni bis bu ko suñu borom euh, antor rek dina tax tay ni bis bu ñuy amati ay coupe d'Afrique wala ay coupe du monde dinañ fexé ay plus de personnes di dem à notre propre moyen ba nga xamni leneen lu ñew rek day nekk bénéfice ci ñun waaw di ñaanal ñëpp nak di ñaanal ñëpp parce que bàyyiwuma kenn parce que bari na ay ay anciens internationaux yo xamni wax deug yalla sama ñew fi lu ñuy rafetlu la parce que dañ ko bëggoon parce que mën naa wax ni euh, plus de cent cent cent Pisco Ndiaye ñi ngi ci biir ci biir panel bi waaye loolu lépp rek tawféex la ak ngëneel la di ñaanal ñëpp di wax ni As Mamoun mi ngi fii ci Qatar bëgg leen wan lépp li nga xam am ci coupe du monde bi durant toute la coupe du monde bëgg naa masu Sénégal yëpp ñu leen di defal ay émission yoo xam ne di ngeen ci kontaan kon rek damay wax ni rek

sport bi tay c'est spécial kon bobu dañ koy cons dañuy def nak euh, manam comme niñ ko defee rek moy itinéraire bi rek maanaam euh, avant stade bi moy ambiance bi nga xamni mo am ci alentour stade bi ak ci biir stade bi ak ay réaction ak ay résumé yo xamni tamit jëlal na len ko euh, am tamit ay ay commentaires ay réaction yo xamni les anciens internationaux noo ñoko def muy grand Amara Traoré di di sunu papa tamit mam tuuti ñu def ay analyses pertinente pertinentes yoo xam ne tey jii wax deug yalla xamna ni avec le temps équipe nationale Sénégal dina taxaw

teg lépp ci loxo yàlla. ah comme d'habitude rek. parce <laughs> que sëñ Saliou na incha allah amiin amiin amiin ah, yàlla yàlla béy na koy waxee rek euh, ñu ngi nii ak supporters sénégalais yi ñu ngi ak l'ancien premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye ñu ngi euh, président stade Mbour sëñ Saliou Samb bëri na bëri na bëri na ay. ay ay ay ay personnalité yi nga xam ne tey jii nii tamit ñi ngi fii di ànd ak ñoom di dem ci stade bi ñi ngi nii nag stade baa nekk nii fii la Sénégal war a ñu ngi di dox pour dugg ci stade bi di wax ni rek avec Asmon TV moom léppay leer waaw comme niñ koy waxee rek moom bu leen ak tout est possible jaajëf les gars moo duggaat ci biir wan leen yeneen affaire waaw comme koy waxee rek gars yi gis les supporters sénégalais les gars Sonko dagare ñu koy waxee rek gars yi gis nga leen waaw ñu ngi confiant les supporters du sénégalais ayca ayca les gars ñu le grand journaliste Madiambel Diagne un grand fan un grand supporter de l'équipe nationale du Sénégal waxee maa ngeeg euh, le maire Abdou Khadre Lo waaw am mbégte ci moom rek ci département fenn Gidiri Gidile Gidile ci Louga. waaw tey confiant de gis naa confiance bi di ah di frotter ci kanam gi. ah oui ah, ah, ah. merci monsieur le maire. ok merci monsieur le maire. ngeen organisé. bien organisé. Taris Cheikh Dieng ñu ngi lay ziar. acca noo gisee match tey bi. ndam rek incha ah. euh, waaw moom tamit muy muy papa ci ci ci Seny Dieng. ñu am ci contentement ak mbégte. di wax ni lii rek la Sénégal tey ñëpp a ñëw bokk ndey ak baay. mais yow kenn du yow t'es la dem nañ ci yow As. jërëjëf jërëjëf Cheikh kontaan nañ ci yow dëgg la merci merci. waaw ñu ngi nii rek. waaw ndam rek acca. acca Sénégal looy wax tey. ndam rek looy wax ah. kon jeena jeena waaw kontaan ci rek. waa ñoo ngoog waa mi ngi nii ambiance baa ngoog waaw tey le grand reporter As Mamoun l'ancien international waaw moo moo moo nekk tey reporter communication waaw tey jag maa ngi ci rek bëgg rek du ma bàyyi dara mu sedd première match Sénégal équipe nationale Sénégal waaw gis nga gis nga leen sénégalais yaa ngoog waa xool leen waa ñoo ngoog bëgg rek bëgg ci ñoom waaw mi ngi di wax rek ambiance baa ngoog